bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu alhamdulillaahi llazii axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 nañu ak suñuy mbokk ñu topp waxtaanu fajar bi ci waxtu bi ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Dramé ci wallum xarala gi jaawa jàlloo ginnaaw buñ sante buur yàlla tabaraka wa ñu ngi julli di silmal ci sang bu tedd bi te mooy ar rasulul mustapha sallallahu alayhi naa di fàttali mbokk yi rek la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee ca xéewalu yàlla ya nga xamante ne du xaaj du jeex mu di ko dottil ci kaw jaamam lenn ci xéewal yooyu bokk na ci lañu doon def ci waxtu su néew tuuti rek lenn li mu doon suñu wirgu yaram moom lañ ci taataan la aju si suñu wirgu yaram loolu lañ doon jëfandikoo di nelaw suñu wirgu yaram moo ci am bénéfice beneen xéwal bi mu doon xéewalu ibaada te mooy julli fajar bañ doon def waxtu su néew ci ginnaaw moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ne xéewalu yàlla ba mel ni nelaw xéewalu yàlla ba yàlla xéewalal jaamam yi mu xéewal ko mboolem bindaafoonam yi ji an nawum sang bi nee na ko yàlla yombalal ben ko boo ci noppee nanga nga sant yàlla ci baat bi ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mooy tekki ne mboolem xeetu cant yu kawe ak mboolem xeetu cant yu matale yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moo faat ci nelaw ginnaaw bu ma delloowee sama ruux te ci moom lañuy ñuy dellu gannaaw bu ñu jóge ko ci dundu àddina si kon kenn ku nekk war naa mën a jàng ñaan bi nga mokkal ko mooy alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu di leen fàttali ne bés ni ki tey mooy yowmul xamis mooy bésu alxamis bésu alxamis bi mooy ñaar fukki fan ak benn ci weeru zilxijja te mooy weeru tibiski xanaa di leen fàttali ne rek des na suñu diggante tamxarit vingt jours ñaar fukki fan moo des suñu diggante tamxarit ñuy ñaan yàlla suñu boroom ñu ngi koy séentu muy digmal si di ñëw ñoo ngi nii di ko séentu muy digmal si di ñëw yàlla ñu fi fekk si jàmm waaye lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu te buy dem yal na ñu fi bàyyi waaye lépp lañ fa ñaan yàlla yal na ko buur yàlla nangu lépp luñ fa jaamu tamit yan na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi bésu alxamis ji di tey tombek ñaar fukki fan benn ci weeru zilxijja ci weeru tëbaski moo tombek gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa mille quatre cent quarante cinq ans ci gàddaay yonent bi mooy mille quarante cinq ans ñuy sintu suñu at bu bees di chahrullahil muharram di weeru yàlla bi nga xamante ne mooy tamxarit te fukkeelu fan bi mu nekk xew-xew bu mag boo xamante ne jullit bi mënees na ci fàggu jéggalaakoor ba yàlla di ubbil buntu jéggal jullit bi war see war a mën tuub ba nga xamante ni buur yàlla da ci ubbi bunt tuub kon nañ leen ko séentu ñu ñaan buur yàlla mu bàyyi ñu fi ñu fekkee ko te lépp luñ ci ñaan yàlla yan na ko buur yàlla nangu lépp luñ ci jéggalu yan nañu buur yàlla jéggal waaye tuub ya ñuy tuub tamit yan na doon tuub bu dégg mu doon tawbatan nasuha amin ya rabbal alamin mbokk yi yéen a ngi fàttaliku démb ñu ngi doon waxtaan ak yéen na yonent bi jàngale na noonu la jullit bi war a génne këram ku ne ku génn nag nga ne na muy delse kon suñu diine bi du diine bi nga xamante ne julleek woor ak aji màkk ak natt azak ak yooyu naam lépp ndax diine bi loolu mooy fondement bi waaye sécurité ba la sécurité yow jullit bay dund diine boobu bàyyeewul ak sa sago bàyyeewul ak sa xalaat bàyyeewul ak seytaane bàyyeewul ak ngay def comme noo ko xalaatee waaye texte bu leer bu wóor te wér moom la la diine bi xàllil ne la affaire bi nii la jàngalekat bu mag de suñu yonent bi sallallahu alayhi wa mu daldi ko leeral ba mu leer nañ keroog yéen a ngi fàttaliku ca xajjatul widaa ba mu defoon ca makkatal mukarram mu ne taraktukum ala bay ala mahajjatul bayda taraktukum ala mahajjatul bayda leyluha ka nahaariha bàyyee naa ak preuve bu leer nañ lay bu leer nañ waaw la ci gën baax mooy la ci gën a baax waaw la ci gën a leer mooy la ci leer nañ guddi beeg bëccëg bi ñoo bokk yem leeraay amul dara la yonent bi bàyyee askan bi lu dul dañu bàyyee lu leer nañ xanaa kañ li fi nekk mooy càggante wala dumóoyu xam ko dumóoyu wala càggante dab la bañ kaa xam waaye fekk yang ñuy may nopp ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 du ñàkk ñokk yow ak mboolem auditeuru rajo bi fii masharikil ardi wa magharibiha yàlla wërsëgal ñoo ñu war fee war a mën a taataan la ñuy njëriñ ci suñu diine bi kon démb ñu ngi doon waxtaan ak mbokk auditeurs yi la bi jàngale ne noonu la bi war a génnee dëkkuwaayam noonu la bi war a génnee ci këram waaye ku ñu ne ku génn ñu ku dugg waaw démb ñun waxtaan ci nu jullit bi di war a génnee këram bu génnee na muy nekkee ci kaaraange ba yàlla di ko aar kon ñu ne bu génnee ba dellusiwaat anal nan la war a duggee ci këram kon tey jii buntu boobu lañ fas yéene waxtaan ak mbokku auditeurs yi bi iznillahi subhaanahu wa taala moo ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne tasmiyatu inda duxuuli manzil yii de ay baat la yoo xamante ne jullit bi daka war a tudd jamono ju dugg ci këram mooy ballukaay bañ ko war a manxe reenu tegtal bi mu ngi tukkee ko ci téere bi di alquraanul karim ca suratu nuur ñu sabata fi sunnatin wa fi kalaami ahli alilmi annahu yusamma yusamma allahu xiinama yadxulu wa yadkuru allaha wa yusallim wa in lam yakun ahadan baytin qaala nawawi yustahabu an yaquula ida daxala bayti bismillahi wa an yukthiru min dikri llahi taala wa an yusallimu sawaun kaana fi baytin adami am la li qawlihi taala fa ida daxaltum buyuutan fa sallimuu ala anfusikum taxiyatan min indillahi mubarakatan tayibatan suratu nuur aya 61 mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot borom téere bi ki ñu jukkil xit bi nga xamante ne moom lañ jàng ni mu nekk aaya ba nekk ci suratu nuur aaya 61 nawawi rahimahullah daf ne wér na ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ak ci kàddu ahlul ilm waa këru boroom xam-xami mbooleem seen dëppoo nañ ne li fi nekk kañ jullit bi buy dugg néegam na tudd yàlla na tudd yàlla na nuyoo bu dee néeg bi néegam la walla du néegam mais imam nawawi rahimahullah moom daf ne sopp nañu ko mu nekk sunna ba ñu sopp bépp jullit buy dugg néegam na nuyoo waaye na tàmbalee ci turu yàlla na wax bismillah waaye nag na bëril la muy tudd yàlla jamono bi ngay dugg sa néeg yow jullit bi sawaaun yow góor ki walla ku jigéen ki na nga ubbi sa buntu ne bismillah na tudd yàlla jamono bi ngay dugg sa néeg waaw na bàkk yàlla sant ko na muslu ci yalla ci seytaane mu ne tamit na nga nuyoo na wax ne assalaamu aleykum wa rahmatullah nee na moo xam nit a ngi ci kër gi walla nit nekku fa ndax tegtal boobu noonu mooy li qawlillahi taala la borom bi tabaraka wa taala wax ca suuratu nuur borom bi ne audu billahi min alsheytaani arrajim fa ida daxaltum buyuutan bu ngeen namee di dugg ci néeg yi fa sallimu na ngeen nuyo ala anfusihim aw ala anfusikum na ngeen nuyu seeni bopp na ngeen sàkku jàmm jëmmale ko seen jëmm yi na ngeen sàkku yiw jëmale ko ci seeni bopp na ngeen nuyu seeni bopp mooy na ne assalaamu aleykum wa rahmatullah donte kenn nekkut ci néeg bi nuyoo boobu yaa ngi sàkkul sa bopp yiw bu fa nit ñi nekkee nag loolu nga leen wax lu mel noonu lañ lay delloo waaw lii yàlla moo ko jàngale ci téere bi julit ñi war koo jëfee kon yow mi génn dem doxi sa soxla en tant que jullit sa diine bi daf la won sa yonentu bi dalaa jàngal ne sa diine bi dee dalaa tegtal ne boo delsee sa kër ga nanga nuyu waa kër ga boo duggee ci néeg bi na nuyu ñi nga fa fekk boo fa fekkul kenn na nga nuyoo amaana malaaka yàng fa amaana nuyoo boobu nga nuyoo dañ la koy sottil ci say balansu peesukaayu jëf keroog bés pénc ba tax na bul xeeb ci njekk dara comme na ko yonentu bu waxee ci wenn xadis ne la taxrikanna min al maarufi shay'an bul xeeb ci lu baax dara lépp luñ ne lu baax la nuuru ci taq ci rib waaw kañ ci lu baax la ñuy taq rib waaw lépp lu ñu ne lu baax la yonent bi jàngale na ko tegtal na ko alquran joxoñ na ko yow jullit bi dang ci war a dem jeex dang ci war a taq rib waaw bul xeeb dara ci lu baax ndax xamuloo sa wan jëf la yàlla di gërëm mu nangul la ko kon ndegem lu baax jarul xeeb defal bur yàlla daf ne fa ida daxaltum bu ngeen duggaatee bu yuutan ci aw néeg moo xam seen dëkkuwaay la wala dëkkuwaayu jàmbur la fa sallimu na ngi nuyoo ala anfusikum seeni jëmm yi nangeen nuyu seeni bopp nangeen nuyu seen jëmm nangeen ñaanal seen jëmm yiw ndax néeg boo dugg te kenn nekku fa boo nuyoo dañ la koy dottil mu doon barke ak xéwal ak mucc ci sa bopp <clears throat> yàlla ne nuyoo boobu mooy taxiyatan nuyoo ji nga xamante ne min indillahi nuyoo ba tukkee fayalla fa yàlla mu doon nuyoo bu ambarke barke tayyibatan mu doon nuyoo bu laab nuyoo bu sell kon képp kuy nuyoo boo nuyoo nuyowin bu wuuteeg na islam jàngale nuyoo boobu validé kenn du nuyu lu wuuteeg la islam jàngale la islaam jàngale nag mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mel moo jógee ko fa yàlla moo tax yàlla ne fa ida daxaltum bu ngeen duggaate bu yuutan ci néeg yi fa sallimu na ngeen nuyoo ala anfusikum seen jëmm yi taxiyatan mu doon nuyoo bi nga xamante ne mooy min indillahi mooy nuyoo ba tukkee koo fa yàlla moy nuyoo ba yàlla accepté moy nuyoo ba yàlla reconnaître moy nuyoo ba yàlla wàccee ci jaamaam yi nuyoo boobu mooy mubaarakatan nuyoo bu am barke ndax nuyoo bi njëlbeen bi barke la diggi bi barke bu diggi la boo àndee phrase bu matale bi loolu mooy nuyoo bu bi mu doon nuyoo bu lambok barke moo tax yàlla ne tahiyatan mu doon nuyoo joo xamante ni min indillahi moo tukkee ko fa yàlla mu doon mubaarakatan nuyoo ju am barke tayyibatan mu doon nuyoo bu teey te dagan waaw yàlla reconnaître ko waaye nga déggee ci ne bi léegi keneen ku nuyoo yeneen baat bu wuteeg la islaam njàngale du loolu lañ la wax loolu moom yàlla reconnaître ko yàlla validé ko waaw donte moo wàccee làkk yi moo wàccee nuyo yi ci làkk yi waaye nee na assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa moom la validé waaw keroog ba yonent bi ràñaane fa moom yàlla keroog noonu la ko buur yàlla tabaraka wa taala nuyoo assalaamu aleyka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa ndii la ko yàlla nuyoo kon nuyoo bi dafa am cislaay islaam alquran saxal ko sunna yonent bi sallam saxal ko yal nañu ko yàlla fayal sallallahu alayhi wa sallam moo tax aaya bi nga déggee ci ne buur yàlla di ñu gën ñaax ne bu ñu dugaatee suñu néegi nañu nuyoo suñu bopp nuyoo ji nga xamante ne moo tukkee ko fa mu doon nuyoo ju am barke nuyoo ju teey te daggan te yàlla reconnaître ko moo nekk ci suratu nuur aya 61 fa idaa daxaltum bu ngeen dugaate bu yuutan ci dëkkuwaay fa sallimu na ngeen nuyu na ngeen sàkku jàmm ak mucc ak xéwal na ngeen ko sakku fa yàlla ala anfusikum ci seen jëmm yi taxiyatan mu doon nuyoo ji nga xamante ne min indillahi ca yalla la bàyyee ko mubaarakatan mu doon nuyoo ju am barke loolu mooy valeuru ñaareel bi valeur bu jiitu bi mooy nuyoo ba tukkee koo fa yàlla nuyoo ba tukkee koo fa yàlla nag ah loolu weesu na malaaka yi weesu na jinne yi weesu na doomu aadama yi weesu na boroom xam yi waaw nuyoo boobu mooy vrai vrai vrai nuyoo bu am barke te mu doon nuyoo ju tey te daggan ci islaam moo tax mu ne tahiyatan nuyoo la waaw yenn seen nuyoo yi ngeen di nuyoo nii asalaamaaleykum nuyoo arabisan lii di nuyoo arabisan lii di nuyoo arabisan lii nuyoo la bu jógee koo fa yàlla nañ leen ko wesaare suñu diggante ñuy ñaanalante jàmm ndax yàlla moo ne taxiyatan ab nuyoo la min indillahi ba tukkee fa yàlla mubaarakatan barke dong fees nag tayyibatan mu doon nuyoo ju teyte dagan mu doon nuyoo ju baax boo ko dut nuyu nit ñi boo ko dut fay nit ñi na nga téye sa bopp waaye buñ bu ñu xeebal buñ ñu xeebal suñu nuyoo ndax xamuloo valeur bi xamuloo fu mu jógee xamuloo nuyoo bi lu mu làmboo yow lan nga jàpp ne loolu mooy nuyoo boo am valeur bi ndegem loolu nga jàpp nekk ci su boobaa ngay xam waaw ah, su boobaa ngay xam yal na ñu yàlla dindi yal na ñu yàlla gindi yal ñu yàlla gindi xiir ci lu baax wallahi waaw jamono ji dafa doy waar nit ñi dañuy jàppee lu baax comme la ñu war a doyadal ñu di ko minimiser ngay dem ci béréb nga di leen nuyu asalaamualeykum wa rahmatullah ñu di la xool beneen bët fekk waxuloo la ñu tàmm duñ la fay parce que euh, dañoo xamul ñàkk xam dina yóbbee nit ci lu bëri xoolal nuyoo bi yàlla nee na taxiyatan nuyoo la boo xamante ne min indillah fa yàlla la bàyyeekoo allahu akbar nuyoo bu bàyyeekoo fa yàlla yow sa ñàkk xam ak sa réer bi nga nekkee nga bañ di ko wax ngay nuyoo yeneen nuyoo yu wuuteeg la yàlla ne nuyoo ba tukkeekoo fa man yàlla la nuyoo bu am barke nuyoo ju tey te daggan te man yàlla ma reconnaître ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku nuyoo nit ci njëlbeen ba am nga fukki yiw ku nuyoo nit ci digg bi am nga ñaar fukki yiw ku andi phrase bu matale bi am nga fanweeru yiw yow nga jël loolu yëpp taxañ sànni fee nga ne man du ma nuyoo baat yi waaw la nga tàmm jëlee ko ci occidentaux yi loolu ngay nuyoo continuer waaye ci diggante bi yan na la yàlla gindi yal na la yàlla orienté ba nga xam nuyoo islaam na mu amee barke ak yiw ja sa nekk wallahi boo ko ñamee doo ko doo ko bàyyi ndax arab day faral di wax faaqidu shay laa yuuti ku amul la mu war a joxe di ko mun a joxe ñàkk xam mu waral yenn yi yal nañu xiir ci boppam yal nañu yàlla xiir ci lu baax moo tax wala rawiya muslim fi saxiixihi an jaabir bun abdullahi annahu sami'a nabi sallallahu alayhi wa sallam yaquul jëlee nañ xadis bi bun abdullahi nee na dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ni ida daxala rajulu baytuhu ab waay de bu génnee ba mu delsi muy nara dugg ci néegam walla ci këram fa dakara allahu inda duxulihi mu tudd yàlla jamono ju muy dugg wa inda taamihi mu tudd yàlla jamono ju muy jëfandikoo xéewal jamono ju muy lekk mu tudd yàlla xaala cheytaan cheytaane ya nekk ci këram dañu naan laa mabiita lakum aa fii de tey kenn du fi mun a fanaan fii dañ fee miine de waaw ay malayka yu yore seen caw sa xiir ñoo fi nekk malayka yu yore karawaas ñoo fi nekk de moom tey kenn fi mun a fanaan comme na ko gars waxe di waxee muus du fi naanee ñeex tey de waaw waaw góor gi wax na baat yoo xamante ne miine nañ këram miine nañ néegam nañ leen daw génn balaa gars di ñëw du ñu yem ci loolu de dañ naan wala achaa te kenn du fi reeree tey ndax waa ji bu mu doon dugg néegam tudd na yàlla bu doon añ tudd na yàlla bu mu doon reel tudd na yàlla wa ida daxala yonent bi nee na bu duggee fa lam yadkur inda duxulihi fa lam yadkur illaha inda duxulihi bu dee waajooju dee daa ñëw saraax dugg ci këram te tuddul ci yàlla qaala cheytaan cheytaane yi dañuy wax ne adaraktum mabita ah fekk nañ fi lal bu nooy waaw fekk nañ fi lal bu baax fekk nañ fi dëkkuwaay bu baax fekk nañ fi fanaanukaay bu jekk ndax waaji ji tuddul waaw tuddut boromam kon tey de dinañ mën a farankulaayo ak moom ci kaw lalam dinañu war a mën a farankulaayo ak moom ca fu muy tëdde wa ida lam yadkuru inda taamihi bu fekkente ne jamono bu muy lekk tamit bi léegi waa jooju tuddut yàlla qaala ma biitan wa isha ah seytaane dañu naan ah fekk nañ fi dëkkuwaay bu baax fekk nañ fi lal bu noy fekk nañ fi matlaay ju nooy fekk nañ fi euh, tëddukaay bu jekk ak lekk bu neex ndax dañuy ànd ak moom ca fa muy tëdd dañuy ànd ak moom ca la muy lekk moo ne bu fekkente ne danga bëgg sore seytaane ca fa ngay tëdd doo tudd yàlla doo ne bismillah doo tudd yàlla doo ne audu billahi min asheytaani rajim doo tudd yàlla ne alhamdulillahi ala kulli xaal doo tudd yàlla jàng ayatul kursi xëytu tudd yàlla yooyu booy dugg sa yow jullit bi boo ko tuddee seytaane yi dañuy bàbbeeku daw ne ëpp tey moom muus du fi naanee ñeex waa ji miine na këram laa mabiita lakum wala isha amuleen fi tëddukaay de amuleen fi palaas fa ngeen di tëdd ndax waa ji daa miine dëkkuwaayam malaaka yu yore karawaas ñooy ñëw de nañ leen daw génn bàyyi ko néegam wala isha amuleen fi dara lu ngeen di reere ndax malaaka ya ko war a aar ñu ngi nii di ñëw ñoo koy aar fa muy tëdd ñoo koy aar ca la muy lekk la tax yàlla envoyé la malaaka yooyu mooy ne da ngaa tudd yàlla da ngaa sàkku danga ngaa sàkku yàlla kaaraange ju mat sëkk mu daal di la envoyé ay junuud ay militaire ay soldaar yoo xamante ne doo gis waaye seytaane yay gis soldaar yooyu ñooñu dootuñu xëj ko yow sa dëkkuwaay te dootuñu xëj ko yow ca la ngay lekk la la ko yóbbee moo ne da ngaa tudd yàlla da ngay ubbi sa néeg ni nga bismillah boo ubbi sa néeg ni nga asalaamu aleykum wa rahmatullah bi nga duggee sa néeg wax nga alhamdulillah ba nga doon naan ndox ci frigo bi walla ci butéel bi ne bismillah ba nga naanee ba pare wax nga alhamdulillah boo paree nee nga allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum laa taaxuduhu sinatun wala nawm lahu ma fi lsamawati wa ma fi ard man da alladi yasfaau indahu illa bi idnih yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxiituuna bi cheyin min cilmihi illa bima chaa wasca kursiyuhu alsamawati wal ard wala yacudduhu xifduhuma wa huwa alcaliyu alcadim mbokk yi baat bi képp ku ko tudd jamono bi nga duggee sa néeg ñu waxee la ko nga wax ko comme nuñ la ko tegtalee nii seytaane yi dañu naan laa mabiita lakum wala isha amuleen fi dara fa ngeen di fanaan ndax néeg bi dañ ko miine ay malaaka amuleen ndara li ngeen di lekk ak waaji ci reeram ndax malaaka yi dañuy ñëw aar ko waaye képp ku dugg sa néeg falam yadkurillaha inda duxuulihi qaala sheytaanu adraktum mabitan képp ku dugg néeg ba nga dëkk tuduloo yàlla waxoo dara seytaane yi dañ nen dinañu ànd ak yow fa ngay tëdd ida lam yadkuru inda taamihi jamono bu muy lekk bu tuddut yalla tamit ah qaala adaraktukum mabitan wa isha dinañu ànd ak yow ca la ngay lekk waaye dinañ ànd ak yow ca fa ngay fanaan su ko defee sa néeg nekk pencum seytaane lala ko yóbbee moo ne yow sa diine gëstuwuloo ci ñi la koy baaxee dégluwuloo leen su ko defee sa nekk nekk pencum seytaane seytaane yi di dugg gauche ak droite su ko defee nga nekk ci xalat nga nekk ci toskare nga nekk ci njaaxle ah rawatina nag ngay déglu seeni son waaw néeg joo xamante ne saa way guddeeg bëccëg kundung kanjang kanjang yaa ngi déglu musique suba ak ngoon guddik bëccëg ah, ah yow seytaane buñ la tiitalee sa néeg yaa leen invité ndax yow yaa fa def la tax ñu di fa ñëw yaa leen woo waaw kañ ñu ne nga woo sécurité boo xamante ne bu ñëwee dañ lay aar nga ne non man du ma woo sécurité yooyu baat yooyu noonu duma ko wax ngay def la tax seytaane di la ganese wallahi dina la ganese mbokk yi lii mooy la leen Rewmi FM 97.5 andil ci waxtaanu fajar bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana yal na ñu yàlla may dégg topp lépp lu jub ci kàddu gi yal na ñu ko yàlla defal lépp lu dëng si kàddu gi ñu ngi ñaan yal ñu ko yàlla buur jéggal amin ya rabbal alamin waxtaan bi jeexul dañu war a yegg si ñoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nara jébbal bërëb bi ña war a joxe xibaar bi ci nasaraan ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana yàlla ñu yàlla wërsëgal dégg topp ñu ñaan yàlla suñu réew mi yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar njiitu réew mi ak mboolem ña koy jàppale yal leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar suñu borom kër gi yan na ko yàlla sàmm yan na ko yàlla aar ak uh, suñu directeur ak mboolem personnel yi fiy liggéey allahumma amina fi awtaanina waslih illahumma aimmatana wa wulaata umurina ya rabbi ihfada biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baraka allahu li wa fi alqur'ani alazim wa nafaani llahu wa iyakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwa al ghafuru rahim